dëgg mënta weesu dëgg xam nga li nga naan le linge sale se lave en famille mhm. dama ko d'accord parce que taskatu xibaar yi am nañu ay kuréel yu ñuy daje surtout sànq tudd nga fi benn col benn atelier boo xam te ne mi ngi maram ak ñu ñu àndal ay atelier kañ ay atelier mhm. Mhm. yooyu convention de atelier nañu fu ne Dakar Ziguinchor Sédhiou fépp ak ak soirée bi kan dañoo neex soirée kay yenn saa ñu organiser ay cas d'école cas d'école yi c'est pour fàttali taskatu xibaar yi seeni am na ay encadreurs. Mhm. yoo xam te mais rédaction yi sax ñoom ñoo ñoom ñoo lajj ci seen liggéey yaa ah, koy wax mooy dama ni accident bu am ci pénc mi dañ koy lijjante ci pénc mi loolu laa gëm mhm. le linge dañ koy sax fóot ci digg pénc mi parce que responsabilité publique lañu amee mhm. dañuy wax ci acte nit ñi di wax ci nit ñi ñëpp di ñu dégg ñu dara ñu war wax ñuy bind ñëpp di ñu liir <laughs> ñuy wax. Hmm? <laughs> ñu ñuy xool. Uh-huh. xam nga boo yeggee ci responsabilité boobu man je me vois mal nga wax ci penc mi luy toj penc mi te duñ la wax ne da ngaa wax luy toj penc bi ci penc bi ngir ne. Ah, ñeneen ñoo xamante fi nekk da yu mag yeeg ndaw ñoo jaar foofu. yàgg na ñu bind yoo xam ne dëgg te kenn du leen ko wax. Ah, mm-hmm. fii nii. ci jam at yi ñu fi génn bind nañ fi bind yoo xam ne mosuma gis benn journaliste bu génn taxaw ne leen. lii ngeen bind wala li ngeen wax waru leen ko wax. le cas de wax la Nabou. bañ ko fi jàppee woon ñu ne. dafa am yoo xam ne dañ daan toog ouvertement merci naan c'est un politicien. lu ko dal moo ko tey woon noonu. Mm-hmm. dañ daan parce que dañoo jàpp ne. ak nit peut-être lu mu lu mu mënti def dëgg mënta weesu dëgg. gis nga dëgg dëgg démb ba. man looloo tax des fois je suis d'accord ak ñenn ñu bari parce que je me dis que. da nga doon bañ démb da nga ko war a bañ tey. boo ko nangoo tey donte li nga bëgg moom nga am dëgguwul dëgg mënta weesu dëgg dëggu démb mooy dëggu tey dëgg mhm. bu ko bu ñëpp gis nga lu dul dëgg mhm. bu ko ñëpp doon def terewul du dëgg dëgg la mënoo koo sang rafetal ko defar ko ba du dëgg lu dul dëgg du dëgg mënoo ko cautionné ak nit mën a bokk ana ñooñu ana ñooñu mais ñooñu ana ba ñuy ba ñu jàppee Pape Alé Niang ñi taxawoon doon wax naan mhm. moo ko teg boppam parce que Pastef la bokk am ñuy wax sax tey naan nekk journaliste tu te rends compte parti la bokk te lañ ko doon wax ak ci suuf lañ ko doon dëgg la doon wax te te ci askan ko doon wax deewu ñu ci Sénégal dañ mm-hmm. koo am seen ay business mm-hmm. am ko ci seen ay link ñëw jël ko taf ko ci nguur gu bees gi ci presse bi tey mm-hmm. ku ci fayul impôt koo ko jiiñ Ousmane Sonko va étouffer la presse ku ci am problème personnel ak ñeneen ñu yóbbu la tribunal. Mhm. ngay bandi bandi toog di wax naan nguur gi moo nekk seen ginnaaw. Mhm. fekk yow da nga am say problème na ku nekk assumer ses responsabilités. Mhm. ñu bañ a mélanger les choses. kii bokkoo leen xalaat bokkoo ne kii yéen a bokk coopération boo ko mënee jàppale nga jàppale soo ko mënul nga maandu ci. waaye buñ ne li muy wax neexuma dama koy déclarer la guerre xam nga guerre 14 18 amoon na. yaa ngi daa am ko mu demee neneen demee ko. léegi guerre boo ko bëggee àndaat kii ndax doo sonn. waaw c'est tout comme aussi tu me permets cri de cœur nit ñi mën nañ ci bañ a d'accord ak man mhm. euh, amul problème loolu lu may nangu la mhm. mais mu ngi mel ni euh, fan yi passé li ma gis aussi xawma 72 heures yu ñu defal Pape ale ça aussi je suis archi contre mhm. nit ki mënoo ko tagg ne ko yaa baax tey xëy tey ne ko yaa bon ci ku lay liggéeyal ci tànneefam mën naa amub njuumte yow te li nga jàppee njuumte mën na bañ a nekk njuumte ci moom bu nu fàtte ne les positions maintenant ont changé dëgg la il doit prendre en compte l'avis du public sénégalais parce que RTS service public la mais nañu def attention aussi ci yenn yi tamit xër baax na waaye xër day ànd ak xel munoo toog fekk koo xam ne il s'est battu pour le peuple ñu tëj ko ci kasu ba kenn xaw cee dem nga Pape Alé daj na lu nekk pour dëkk bi nga bëgg xëy tey pour un choix de personne bu ñuy wax te dara leerul sax ne moom jël na ko am déet mu jur li fi jot a xew lépp. Mm-hmm. nit ñi tamit bu ñuy gaaw di fàtte démb as góor du fàtte démb. Mm. lu la nit di defal. gis nga ngoone Saliou ñun one n'est pas pour di set luy neex nit. li ñuy wax mën na nekk dëgg mën na neex nit comme mën na ko naqar yi amul problème. Mm-hmm. mais il faut ñu comprendre ne ku ci nekk itam position am ak ci décision ba muy toll ca waxta ba muy ne. te on attendra wax la preuve de certaines allégations aussi parce que ba léegi nii marché j'ai pas entendu Pape Alé wax ne recrutement boobu par exemple moom mu nga ca mm. comprendre nga baax li ma la wax te même bu fekkee ñenn ñi d'accord ñu ci sax mën ngaa wax ne d'accordoo ci yenn décision yi sans pour autant mu yegg ci benn degré bi yenn yi tamit bu lu koy tere ñenn ñi nañuy moytandiku di ko def mm. man sama m'a fait extrêmement mal bu ma gisee yenn yi je me suis dit mais attends les Sénégalais kañ la ñu yegg fii il faut pas qu'on en arrive à ce niveau-là il faut que nit ñi di comprendre aussi ak di nangu wute gis-gis loolu ci am réew buy dox ci wàllu démocratie noonu lay tëddee mais surtout koo xamante ne dalaa xeexal defal la lu ne wax dëgg yàlla kooku mënoo ko wax ni ko démb yaa baax ñu fal ko def ko DG nga comptable jubilé sur une décision bi ak les autres décisions à venir qui peuvent ne pas être approuvés ou appréciés par un large public basé sur des rumeurs et même au-delà de tout cela Nabou bu à dire Pape Alé dans l'exercice de ses fonctions moom ak keneen a keneen mën nañ commettre ay erreur bu boobaa dinañ taxaw ne leen def ngeen erreur parce que wax leen ko loolu lu jaadu la ñàkk bañ a d'accord ak ñoom itam ci yenn décision yi jaatu na mais bu nu yegg benn niveau bi ngal la ngir yàlla bu nu bëggee defaraat sunu société ce changement de mentalité là dafa ànd aussi avec l'acceptation de la contradiction mm-hmm. Mm-hmm. c'est important c'est hyper important que ñu xam ne kenn ku ci nekk ci ñun dafa war a nangu nii am na loo xamante ne nii sañ-sañu doomu aadama la boo ci d'accordul itam bu mu justifier ñàkkub teggin mm-hmm. te bu nu tax it ñu fàtte démb ndax fàtte démb baaxul de mm. buñ ko dee defee nii du baax du baax nag te nag wax dëgg yàlla mënuñu reprocher yenn yi ñenn ñi ba pare benn comportement bi ñu di ko am man je suis archi contre ça et je l'ai dit tout à l'heure man en fait je suis archi contre toute façon wala tentative boo xamante ne de déstabilisation la wala d'insulte ou d'intimidation visant une personne boo xam ne maak moom ñoo ko gis-gis ou pas parce que dama gëm ni ci idée lañu war a ñëwee mhm. dañu ñëw ci idée bu ñu ñëw ci yenn yi bu ñu ñëw ci yenn non yenn yi ay bassesse la pour man loolu quand quand on ko que nous on a tous les arguments et ñun ñooy doxal wax dëgg yàlla oto bi nekk ci kanam kenn oto bi nekk ci ginnaaw kenn du ko klaxonné hmm. ki nekk ci kanam kooku la ñuy klaxonné mm-hmm. te klaxonné boobu mooy justifier bruit bi te le bruit là ki jiitu ci kanam da koo war a nangu tamit parce que on ne peut pas faire l'unanimité mm-hmm. fii kenn rek moo fi dul wute yàlla suñu borom mais doomu aadama bu ne tu es assujetti affaire des erreurs ou mm-hmm, pas mm-hmm. l'erreur nag mën nañ ko wax constater ko mën nañ ko sax dénoncer mais bu mu dépasser les limites du respect ça je tenais vraiment à le dire. Mm-hmm. merci d'accord jërëjëf waaw ay waay sarax ma ñu avancé rek fi mu ne nii non xam nga euh, euh, xaaral dañuy def benn affaire chaque jour ñu def la minute de la presse nga jox ñu cours man bëgg naa loolu. kan cours yow. Ah, euh, hmm, tu es un grand tu fais partie des journalistes. yi gën a ko ci <laughs> xale yi ma jox cër sarax ma rek ma dem dimbali bu rek ma ko mayee maanaam ci jamono bi ñu jàppee woon Pape Alé dafa amoon débat bu ñu installé woon dama bëggoon relever ñaar rek ngeen mhm. ngeen xàmmee acteurs yi doon wax ñaar mhm. dafa am ñu doon wax ñoo xam te ne ci presse bi lañ bokk kenn mënu leen cee génne ndax ay taskaru xibaar lañ ñu doon wax ni Pape Alé Niang li muy def du journalisme dafa far kooku mën naa ko comprendre parce que xamul tax kooku jaar na fi mu a jaar ba mu doon taskaru xibaar ñëw di apprécier moroomu taskaru xibaaram liggéey bi muy def de l'autre côté aussi ñeneen naan yéen yéen a xamul luy taskatu xibaar te ñoo ñit ay taskatu xibaar leen naan leen ci li ngeen nekk àddina daf ko dépassé mhm. da ngeen war a lii ba mu juróon sax débat boo xam dafa defoon sax cas d'école ñooñu it mën nga leen suñuy professionnel suñuy mag ñoo di ko wax mën naa ñooñu mais xam nga ñan laa dul déglu mhm. te liñ doon wax ci Pape Alé Niang à chaque fois su ma ko déggoon parce déggoon nga ay ministre yu mhm. taxaw naan du taskatu xibaar kooku taskati xibaar bu fa nekk naan da ngay werante moom yaa tooñ sa bopp xamul tax ah waaw ko fenn de docteur Babacar Niang bi nekk suma <laughs> suma assistance moom laa lay wax dama lay jox <laughs> exemple gàtt oui docteur su euh, bi nekk suma assistance mhm. soo ne yow da nga am problème mu dënn mhm. mu ñëw ne la kaay ma defal scanner mhm. nga def ko pare ñu génne mu génn résultat yi ñëw ne la nii yow en tant que patient da fa nekk naan ko noo scanner bi noo moom docteur suma assistance dina werante ak yow ñaareem ku baax danga maa gën a xam li may def nga gën ma koo xam mu pose place bi ne la toogal faj sa bopp mhm. wa illaa boo comprendre nga laaj ko mu ne la lii la te ñooñu doon wax mooy ministre ak directeur général nangam di apprécier liggéeyu Pape Alé Niang te duñ tas tas petit xibaar mhm. ñooñu du ma rey sama bopp ci ñoom te leen naan wax jamono jooju dama doon wax rek ni man Pape Ousmane mu tuuti nii te ñàkk a xam dara ci métier mi man du ma ci werante yow mi ci xamul mhm. la wax di ah lii ñi ma liir sax ñu ma ci jiitu di lii leen ci wax mhm. ma xam ni werante du am ndax da laaj ci baat maanaam kiy laaj mhm. dafa bëgg ku ko leeral mhm. waaye laaju diingat fee lay tege xam ne ci agenda nga de tax il est important ñu ràññe jamono jooju ñi doon wax ñan la tant que c'est entre collègues oui entre confrères mun naa ko tolérer mun naa sax dugg ci débat bi naan Pape Alé wooy position bi nii waru ko woon def nangam loolu ñun la waaw mais aussi nag non non keneen ki c'est c'est les internautes ou euh, les téléspectateurs qui nous suivent tous les jours te ñooñu dañoo am part parce que souvent da ngay informer koo xam ne moo la gën a xam donc ils ont leur, leur mot à dire c'est pas comme la santé bi nga xamante ne mën nga ñëw nit wax la loo jàngul mënoo ci wax maanaam euh, nabu li ma lay wax la technique kenn du ci wax waaye ci moment yi fa mu tolloon ah ñaar rek